amateurs yi ñoo woote fële ca arène nationale di journée bu mag journée bu neex di dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Batista 2 ak Boy Sadio Batista war a bàyyeekoo Pikine ki nga xamante ni mooy Boy saajo war a bàyyeekoo jàmm gën gars yi nag nekk combat boobu mooy combat amateurs yi moom la ñëpp di xaar looloo waral tey Bawal TV def déplacement ñëw fii ci Pikine seet si ki nga xamante ni mooy Batista nekk xale boo xam ne macha allah marqué na empruntam ci làmb def ci làmb loo xam ne yaakaar naa ni làmb reconnaître na ko ndax ku def sept combats sept victoire yaakaar naa ni kooku palmarès macha allah waaye mbokk yi duñu def lu dul bàyyi ko mu nuyoo ñu dugg ak moom ci waxtaan bi Batista nuyu nañ la siyaar. waaw ñu ngi lay fay waaw dool di santaat yàlla di santaat yàlla bu baax waaw di santaat yàlla bu baax waaw di sant suma papa bu baax a baax waaw di sant suma yaay waaw di sant waa Kaolack bu baax waaw rawatina waa Pikine di sant waa Pikine xam nga di woo waa nga waa Pikine gars yi nañu génn ñoom ba son waaw ñoom jamono boo ko jëf naataange. waaw cité 1 bi cité 2 cité 3 bi yëpp waa Gazelle waaw moo am marché bi yëpp daawu waaw gars dañu génn dooleel ma quoi parce que samedi yàggatul waaw. macha allah dégg ngeen noonu champion bi nuyoo yaakaar naa nuyoo bi am na solo Batista bu ñëwee ci sa carrière fi mu ne nii yaakaar naa ni sept combats sept victoire Batista nekk ci combat boo xam ne war a dox ci digganteem ak Boy Sadio Batista la moo ko dugal ci Boy saajo waaw Boy Sadio ndaanaan la parce que nee nañ ñu ne soo bëggee nekk ndaanaan da ngay daan ndaanaan mhm. waaw nekk ndaanaanam nag moo tax ma jël ko pour ñu bëre mhm. waaw teg mu mu marqué empreinte am daan ay champion xam nga mhm. waaw bu doon defee dara aussi man damay xool leneen mais comme gars yi euh, góorandoo yi doon doon sama combat gars di bañ ba booy saaju bëgg waaw damay sant yàlla may jël parce que ñun amuñu dara lu dul làmb ñoo ko opté ñoo bàyyi jàng bàyyi liggéey bàyyi lépp ndax làmb waaw kon ñu waxoo rek dañoo war a xuri bu baax a baax waaw loolu moo tax ñu jël ko waaw. ayca booy Sadio lan la jox mu war a am la carte choix bi booy Sadio la woon wala. waaw choix bi du woon booy Sadio sax. waaw mën naa ne aussi booy Sadio mën naa ne nekkul woon booy Sadio parce que maa doon xool so feneen quoi xam nga waaw ay ay Belende waaw ay Bébé Diène ñoo ñoo ñoo nekkoon sama kanam ñi waroon wax Bébé Diène sax la jëlee gàqu de. c'est incompréhensible waaw mais booy Sadio oh, kii dafa ma woo góor daf ma utal adversaire woo sonn. gaa yi bañ amuñu après si la booy Sadio bëggee mën ko acca kon na neex. nekk ku bëgg fu mu fanaan ak bëgg ku ko wéttali. waaw noonu la demee nag mooy li ma la wax rek. làmb ñu ñoo bàyyi lu bëri ndax ndax làmb waaw kon nekk fi naan naan dañuy tàmm a bëri bu baax a baax li ma di wax rek man bëgguma nekk champion heure bi bëgguma sax yéeg au sommet naa bëri sama borom ba pare ba të waaw après ak yoon bi gaaw quoi. yoon bi mais mais xale bi nga jël nekk xale boo xam ni làmb da koy bàyyi xel muy booy Sadio ci xeex bi ci bëre bi est-ce que Batista préparé na ci côté boobu. waaw ñun moom liggéey nañ bu baax a baax. waaw ànd ak suñu kilifa moo kërsu waaw li sant daal sama waa écurie waaw jël nuyoo bi di ko teg si loxo Onde Lofou mu jàlloo loxo si écurie bi di nuyu sama président écurie Malick moo kërsu waaw parce que moom gàcce ngaalaama parce que man aw ma kiiwam aw ma fayam. parce que mi ngi daj lu ne si man matinal ñooy ànd yaa ngi gis ni maa ngi doog a yeewu ni matinal la mu yóbboon nii te maa war a bëri kii combat bi tegu ma si dara lu yomb. combat bi des deux jours nga matinaalu. waaw xam nga rek waaw saf saaf combat bi dañ ko warul perdre. waaw waaw on peut mais ñun tamit nekkuñu pour benn mbër mooy la ma rek ñi entraîné mais entraîné nañu pour Boy Sadio kese. yaa ngi su ma su ma amul combat damay entraîné su ma amee combat arène. si laay waañ mbapat yi su ma ko amul damay dem mbapati waaw man nekk ma pour benn mbër làmb laa fi nekkal waaw mbër laa quoi mbër nga mais nga ñëw ñu jox la xale boo xam ne dafa dafa dafa dafa sonal génération rawatina catégorie bi mu nekk nga ñëw jël ko mais Batista ba léegi waxuñu lan moo ko duggal ci Boy Sadio ndax xale bi weex na mun na bëree mun na xeex amoon na fi sax combat MMA boo xam ne nee na moom la mu waroon def ci MMA boo moytul sa kaw la koy xëpp. waaw mooy li ma doon wax rek affaire moom yàggatul on verra parce que gannaaw suba yàggatul samedi. waaw samedi nag gars yi ubbi seen bët xool li ma yàgg di wax rek gars yi maa umpale waaw maa ngi def ay preuve gars yi dañuy gis xool xool sama palmarès xool ñu ma daan nga xool Boy Sadio ñu mu daan bokkul sax te moom daan naa ko aussi xam nga. daan nga Boy Sadio waaw daan naa ko yàgg ko daan un mois rek suñu combat taxaw. mais mais ngeen bëre un mois après seen combat taxaw yéen ñaar. moom moo la sonal pour ngeen bëre wala Batista moo bëggaat combat bi seen diggante yaakaar ni sa waay nooy neex la wala nu mu fa demee bëgg combat bi ci yéen ñaar. man góor woo ne ma comme maa doon combat gars

dóor du benn moo tax ma ne gars yi nañ nañ ubbi seen bët xool ma gars maa umbule. gars jël favori xeex bi jox ko Boy saajo nag nga lool. gars yi moom daal la ñu jox favori sax maa gis gars yi daan ay bari sax mooy favori si bëre bu bi Boy Sadio ndax gars jox lépp. xam nga day tax su ma ko daanee gars gën ma gën a xam maay kan. a xam yaay kan mais ba ngeen jàppantee ci Mbapat bi loo sentir ci Boy Sadio am na doole. ah mbër la ko mbër yëpp daal ah, liggéey na bu baax a baax xëy. macha allah amoon na doole ba ngeen di bëri ci Mbapat bi Ah, ah gisuma woon dool wax dëgg fa yàlla de ku dee sa bàmmeel. ah maa la loolu de yàlla mooy seede. waxuma woon ngi dara kon jàpp nga ni yéen ñaar seen combat arène bi mooy gën a mooy gën a yomb mbapat. ah moom nee na boobu mbapat bi nee parewul nee moom daa juwoon rek dem waaw man instant yi entraîné kay ay weer weer xanaa instant nag tamit pare na su ma ko daanee mbër bi mhm. ah. mais mais làmb ji bëri coow lool ngeen nekk ñaari xale gis nañ keroog seen signature bi foofu tàngoon jër mel ni daam lu nekk seen diggante yéen ñaar règlement de compte yéen ñaar seen diggante waaw booy Sadio moo doxal yëfu xale rek xam nga man esa esa su ma ko si fekk si woon amaana mënoon nañu xeex si kaw seen bi waaw mais dama bàyyi lépp mu sedd parce que làmb ji yàggul lu muy def noonu mu samedi mu def ko waaw foofu foofu la njëriñ yoppee quoi. ko defee samedi lu ko ah, man gars yi xam nañ ma man gars yi du ma wax li ma la rek gars yi na ñu ma xam bu baax a baax combat bi boo gisee gars yi di ko werante rek mooy ñu ma xamul mais ñu ma xam bu baax a baax baax waaw yéen noonu la demee nag wute na lool de waaw mooy lu ma la wax rek. seetaan nga doon naagu ca mbapat ba yaakaar ni moog fii yam nga ñëw am lu la bett. ñaata combat la am. am nga sept combat ci arène bi. waaw mais nga daan ba Boy Sadio ci mbapat. waaw man boo yaakaaree ni na nga ko woon ca mbapat la yombaatee fee mais doo mbaa doo la bett foofu. Boy Sadio man man ñi moo dàq moo gën a soxor Boy Sadio aller retour moo gën a xeex. instant yi comprendre waaw moo tax làmb ji moom instant yi wax ji moom jaratu ko lu ñu wax yëpp amaana tamit jàll nañ ko si kii bi mais insha allah samedi Batista waaw mais mais mais boo ñu doon wax kan mooy Batista avant samedi kan mooy Batista waaw Batista benn mbooy la bu nekk Pikine rek xam nga yaa ngi bëgg làmb fooy làmb waaw doon ko defandoog samay mborom su mel ne ñoom xaarim boñaa ñu maa ngi moom ñoo yoroondoo ñoom fàllu sama seex la sama jumeau la waaw ñoom Petit Pape Ahmed Ahmed Gueye Djibi gaal boobu gaal la ñu waaw Ousmane daa war a daa war a fas soxna vendredi suba waaw moom di la ñaan moom doo ca dem maay maa ngi fa ah? waaw man doomu Pikine laa man fépp lu Pikine kii rek maa ngi fa da nga am ngay tal ay taq kan mooy Boy xam nga Boy Sadio kan mooy ki nga war a dajal waaw ah, baax na ba samedi dinañ xam booy Sadio ak Barissa man man bu baax bi mais mën nañoo xaar xeex seen diggante yéen ñaar yàmb yaa tuur

waaw kii boobu station boobu est-ce que Batista attan na ko. man maire bi laa soxla maire Diamaguène. maire yi maire Diamaguène laa soxla. ñaata yoon nga duggagum Diamaguène. deux. nga fi fils de Max la ak. waaw ak boobu. ak Boy Sadio. yee maire bi laa soxla su ma ko daanee dama jox maire bi wala ñu jox ma ku war a bëreeg double moteur nu mu tudd. ku war a bëreeg. double moteur. double waaw Mama Lamine. waaw na waaw. déggal sa dugg na Diamaguène daan ba laaj Mama Lamine. Batista dugg dugg Diamaguène daan fa fils de Max. waa jàmm gën am lu leen metti mu ne da ciy teg nga xamante ni mooy Boy Sadio bu paree dem ci Mama Lamine gën na koo ci Boy Sadio naan Mama Lamine. parce que damaa xam sama boobu xam may kan nee la gars yi dañ maa la ñuy xam kan mooy Batista te saraxu Boy Sadio caalaan lay jógee. waaw may moo koy indaale <laughs> ba ma koy daan saa yema saa yenn ko sama sigam ay sama mbër bi sarax bi li muy doon sama ndaanaan bi ah kii xam na loolu suuf la mais mais waa waa waa jàmm gën moom nee nan ñooy yëngal ci kaw ñooy yëngal ci suuf bu ngeen yéexee yéen waa Pikine stade bi yéen la gën a jege mais doo leen toog fu baax. waa jàmm ngeen moom Mbaye boo doon joxee micro boo si gisee suukar ñu lekk micro bi li ma waxoon booy Sadio waxata la Lamine moo pata te ngir yàlla loolu muy def samedi na ko jëfee quoi waaw parce que amateur yi ñoom seen bis bi mooy seen première édition ah. waaw dafa war a saf saab waaw combat boobu lu yomb. da nga yaakaar ni yéen ñaar combat bi dina yomb comme ni nga a xeeb Boy Sadio. non ko sax parce que moom yow boo yow bu fekkee. waaw moo tax. non non fii mbabat déggoo ma la yow lamb yaa tuuyu tout le monde fii kenn mënul kenn. Mhm. da jiital mbër mbabat ñaari yoon boo ko boole dajee mu daan la daanante la. Mhm. essayé comprendre mais ñun lamb ñu duñ ko foowee parce que xam nañ fi ñu yóbbu ak gars yi ñu ci sonnee waa seen amateur du ma fooyoo de. mais préparation bi ak yeneen préparation yi wute na wala benn. benn la combat yi déggoo ñun combat buy ñëw day doon premier combat si ñun ñun amul bu ñuy bàyyi mu sedd. Mhm. su ñu maatoon combat boo ñëwee da nga bi mooy suñu premier combat waaw. ayca Batista lan lay wax ñi nga xamante ni ñoo waaye ñooy waa association des amateurs di nuyu au passage le président Goro Ndoye ak nga xamante ni mooy El Hadj Balla Diop borom défense série bu ndaw ñu koy nuyu baax di ko siyaar ñu ñëw seen première édition ñu taamu la yow ak Boy Sadio. lan nga leen di wax ñoom waa amateur yi. waaw mooy li ma daan wax rek góor na moom gàcce ngaalaama waaw parce que moom la man ma combat man a sant yàlla bu baax parce que moom daa bëggoon tëgg sama ba ba ba xaddi ba ba disaa garaawul gars yi ñoo la ñemewul wallaahi asim gars yi ñoo la ñemewul bàyyi ma xool keneen mu ne ko garaawul mais si biir semaine boobu si la Boy Sadio nangu ko gis naa sa combat bu neex bu may woo maa ngi si doodaan bii mhm. mu ne ko ah, kan la mu ne ma Boy Sadio nee bëgg na mu ne ko bëgg na mu ne waaw ma ne ko kon wol sama papa mu ne waaw ko jël mu wol sama papa ba ñu ne ma taxaw na affaire yooyu noonu. waaw yee. waaw seen amateur. Mhm. gars yi dañu leen dañu leen wuyu si na leen gars yi fay bor bi est-ce que comprendre mhm. parce que lamb bu taaroo lu gars yi di wax rek ñoom la mhm. ba lamb neexee ñoom la bu ñuy fay ay millions ñoom ñoo tax xam nga gars yi dañ leen fay si seen bor ngalawaay na mbër yëpp génn sàmm yëpp nañ génn ñëw seetaan si amateur yi nañ génn gars yi nañ jënd tige yi gars yi dugg parce que ñun ñoo laan war a ñemeloo quoi ñoo leen war a ñemeloo lu tax ñu tëggaat suba combat en tout cas ñun suñu côté incha allahu rabi dinañ matal stade ba mu baax ba mu saf sàpp waaw waa Kaolack yi ñu ànd ay bus suñu Babacar Mbacke mu kabaroo waaw euh, Ibou euh, Ibou Bambara gars yi ñoom ñëpp ñoom Mbaye ñoom Tafa Sey Baba Naar fans club si jàpp baax a baax moo tax saa yi combat bi duñ ko foowee de. combat bi daal mel ni ñor na Batista ak waa Pikine ak Kaolack. gisoo fi ma nekk nii. waaye gis open press ngay bon ko kaw Kaolack. waaw lu ma la man waa Kaolack aw ma seen fay. amaana man maa leen gën a deseel mais ñoom deseeluñu ma dara parce que topp nañu ma fépp xam nga ay ay 500 et quelques personnes wala ay 1000 personnes nga déplacé loolu dëkk dëkk ngir benn jëmm kase loolu daa yomb. waaw su ma ñëwee ma yeew ba gis leen fii nii gaayen du yomb de du ma wanteer su ma làmb de wala xalaatuma ko sax. Eh. mu mel ni mu mel ni sa waa ji toog moom am na am na lu mu sànni woon ci kii mel ni daa moom daa xeeb Boy Sadio kii moom daa xeeb Boy Sadio. nga ne la yow. non Boy man saa mu koy daan tere gaal sama kanam la woon maa mais du yombee comme boobu de. bii bii mooy gën a yomb parce que sarax sarax bii moo gën a yomb si man. mais bi daa am dóor. no bii nii non bii moo gën a yomb si parce que sa waay xam nga avant muy dugg si moom si bo si moom si box moom box la doon def. moom Batista a indi sarax si. non sarax maa ko indi caalaan laa ko caalaan laa ko jëlee indi ko fii nii. mais mais mais bu ñu waxantee dëgg. Boy Sadio yaakaar naa ni mbër mu weex la de. non Boy Sadio sa moo gën a moo gën a weex fii sa kii fii da max. fuuf moo gën a weex fuuf. nee daa xiif daa daa maanaam booy ñemewuñ ko Batista ñeme gi mu ko ñeme la bëgg a xam fan la ko teg. non sa waay xam nga kii Boy Sadio ko xam xam ne moom wax rek wax rek lay def. bu dëgg. waxtaan la de waxtaan la de. waaw incha allah dina yomb daal xam nga. dina yomb trop. ayca billaahi waaw am na solo waaw. jaajëf gis ngeen noonu mbokk yi bu ko defee ñu jox ki nga xamante ni mooy Batista mu tàggoo woo ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale ci combat Batista. waaw li may wax rek di woo waa bu baax. waaw waa bokk jëf bi xam nga waa waa Naataange waa Jamono waa Daoudan gars yi dañu gën jàppale seen doom xam nga waa Kaolack. waaw ma dul Pikine waa Kafe ba sonn sama transitaire xam nga ñoom Tafa Diop borom laadu bi borom oto yi borom parking gars yi bu baax. waaw di sant Assane Karbala borom Italie Assane waaw moom waaw mi si jàpp baax a baax di woo yëpp gars yi am nañu génn waaw ñoom Père Omar Thiam xam nga. waaw Eumeu Sène Boy Niang ama dañ ñëw dugal seen loxo bu baax waaw gars yi ñu ngi déggante xam naa dañ si jàpp. 100% waaw 100% bi 200% bi. 200% bi waaw combat bi xam nga àdduna la combat bi àdduna la. waaw di am combat bu gën a metti mais di nga am combat boo xamante ne. waaw combat bi dafa am coow quoi. combat coow la waaw combat dafa am coow gars dañu ko bëgg. waaw parce que góor ndooy chaque jour mi ngi démarché mi ngi dugg sa affaire di waaw ñu dañu ko war a fay bor bi man am naa yéene boobu wax dëgg fa yàlla. dinaa ko bëri dinaa xeexal ba mu neex dinaa tuus ba mu neex dinaa daan bu neexee yàlla suñu borom. kenn du mer eh, kenn du mer yàlla. waaw di sant suma papa bu baax nag waaw day sonn si man day sonn si combat xam nga. waaw di a waaw supporter ba mu neex bëri nànk gars yi ñibbi si waat si jàmm waaw violence ñax. waaw di sant sama waa gàll fii nga ma fekk quoi waaw Amina sama jigéen la waaw moom borom ceeb yu neex yi. ak maman. xam nga ñoom ñëpp maa leen di jaar waaw tawfeex rek. am na solo eh. jaa ngeen jëf gis ngeen mbokk yi tey dañ leen indiloon fii ci Pikine àndoon ceeg champion bu Batista nee na leen moo war a dajeeg xale bi ñu naan Boy Sadio di bàyyeekoo jàmm gën lamb ji war a am la 4 mars fële ci arène nationale amateur yi tëgg ko ñi woo ñëpp ñi ñëw jàppale ñi nga xamante ne ñooy amateurs yi ndax yaakaar naa ni làmb kenn du ko wax te waxoo amateur promoteur ñooy tëgg ñuy ñëw di dagg seeni i billets yu cher ñëw di seetaan tey nag yàlla dogal ñoom ñu tëgg na leen gars yi fay seen bor ñëw seetaan si ñu nuyu président bi Gora Ndoye di nuyu bu baax a baax El Hadj Balla Diop borom di foncé waaye mbokk yi mooy nuyu ki nga xamante ni mooy Samba Fallan ah, borom Belgérie Ladoum sans frontière nekk fële ca Guédiawaye Medina Gounass gars yi nee naa leen ay produits bu baax ñu nga fa ku bëgg gis ay xar yu rafet macha allah xar yu baax ñu ci mel ni ay miisu Qatar ah ay huitième de finale ñeneen ak ñeneen ñoo yaa ma gën a xam boo fa demee daal di nga gis xar yi yëpp incha allah ñu koy nuyu di nuyu équipe ba fa ne yëpp. làppa ñu koy nuyu di ko siyaar waaw. di nuyu ki nga xamante ni mooy docteur Sila ñu koy nuyu di ko siyaar Vieux gars yi toog foofu yëpp di naan caayin ñoom Kalidou xam nga bayaas yi ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen bëgg baax a baax Batista daa mel ni daam koo fàttali. waaw muy Tafa Maretu kenn la si man de si man bu baax. waaw day dagg yiteem nekk sama yite xam nga. xam nga xam nga ngay déplacé loo mag magum jëmm yombul. waaw ak di sant waa Colobane bi bu baax a baax. ñoom nongo nongo Colobane waaw dinañ wax anniversaire bi dimanche la anniversaire Tapha. anniversaire waaw jàll na quoi mais combat bi lañ koy lañuy xaar moom lañ xam nga. waaw ak ak Pam Bindu xam nga ñoom Jules baax amu seen fay. mais Batista seen lendemain combat am na combat bu neex bu yam après. waaw yow maa ngi maa ngi biir stade toog maa ngi waaw yow. la si nga waaw boo ne kii mooy daan moom da far wax dëgg fa yàlla boo ne kii mooy daan da ngaa far laa mu jar ndéem la ku ne mën na daan ku am na ñoom ñaar kan la ci xeex bi xeex bi Sadio xeexam xeexam ñorul à cent pour waaw moom day sànni coup pour mu daan rek moom faaw rek jël coup c'est incommodant te rek tamit instant dafa naa jàng na xeex ba ñëw te tamit yeewu na tamit gars yi koy entouragé dinañ ko wax bul jël ko jéem koo jàpp. Mhm. Sadio na jéem a xeex fexee bañ a def erreur. mais bi. daa attan poids bi dugg foofu. attan na ko ah seetaanoo kii bi seetaanoo open press bi. seetaan naa open press dafa am doole de ñoom ñaar combat li ma la wax rek 50 50 gisoo Sa Thiès. koo moo doole ci ñoom ñaar. bu daanu. dóor mu daanu. yaakaar ma ko de. yaakaar ma si dóor dina am bëre de dina am bëre. waaw ndax ñoom ñaar ñëpp seen seen xeex. tuuti la quoi dañuy def dañuy xeex tuuti après jàppante. Mhm. lamb ci bëre lay jeexee de waaye bu ñu moom hmm, ñu jàppante wax. loxo loxo dar gémmiñ de. xaw ma kuy nag waaw mooy dina neex. ñaari bëri kan la ñaar ñëpp mën a bëri bu ñu jàppante loxo dar gémmiñ. waaw pour tax lu yëg dóor tànk yi. ah ay lañ de. am na kenn ci ñoom ñaar koo xam ne une minute trente secondes am. ay <laughs> yaa wax de. ayca Batista mi ngi noonu kontaan nan may gërëm sama caméraman Thomas ci liggéey bi macha allah bu jaaree yoon moom la du bu baax maman national pël bu rafet maa ngi lay nuyu di la siyaat bu baax a baax a baax waaw sa waay daa xiif aja bu xiifee looy wax ni bu xiifee sax nga ñuy xuloo man damaa xiif damaa xiif daa mel nag yaay lekk-lekk bi di ko bàyyi de moom mooy pëj pëj bi man tey damaa wóor looy wax ni moom daa war a bàyyi day jooy ay ja gaay bëgg na leen dig daje beneen yoon incha allah